dafa am loo xam ne day xew ci jamono ju nekk xew na ci jamono mag yu njëkk ya yàlla am lu mu leen feeñal génération bu nekk ak son missionnaire Serigne Modou Kara est le missionnaire de génération loolu yàlla moo ko def mais su yemoon ci tiitru mbàkke mbàkkeem rekk ñu wax waaye ku jege sëriñ du Kara li ngay njëkk a ci moom mooy sëriñ Touba kese sëriñ Touba kese lay xeeñ ñu ne su yemoon foofu doy na nga gëstu ko tuuti ci li muy produire maanaam dañuy wax un intellectuel à sa production quand il est capable de faire ou d'écrire des essais ou des livres Serigne Kara man fekke naa guddi koo xam ne bind na ci treize poèmes treize poèmes en une loolu yàlla may ko ku nekk dama ne sànq ci symposium bi Serigne Touba wone na boppam ba pare jaratuñu ñu ñuy addis di ñu daaneel ci Serigne Touba ndax Serigne Touba moo ñu njëkk a daaneel moom boppam ku wax ci sëriñ Touba da ngay nettali li la Serigne Touba wax wala ngay nettali bind sëriñ Touba waaye sëriñ Touba moo njëkk a moom wone boppam nee naa ko sànq ci symposium bi ak professeur Niang suñuy wax ku raw faqaqadun min al alfi fi rusli cent mille prophètes la yàlla sàkk jël ci trois cent treize def leen apôtre sëriñ Tuubaa moo ne baaxa biya laahul kiraamal xuraa wowi baqaa hiya nabiya sira képp kuy sang keroog bisu pang ba yàlla nee na sëriñ moo ne yàlla moom lay damoo loolu mënuñu fee nettali lu ko raw bon ñun murit lan mooy suñu mission am nañu yeneen mission yoo xam ne ci jamono ndax ñun dañu war a yore jamono waxuma Sénégal waxuma Sénégal murit dafa war a yore jamono te Serigne Modou Kara nekk na un ci naka la ñuy mun a yore jamono dama ne Bamba fépp bi c'est une philosophie. Serigne Khadim Lo mu dugg si na jàmbaar dugg si na bisu turandeem bi ci la ñëw. bon ñi ngi dalal gan gi dugg waaye sëñ bi dama bëgg seede maa ngi lay seedeel suma cofeel ci yow maa ngi lay ñu mottali ko ñun ñaar incha allah allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf monsieur le ministre toujours ma ne xaw ma conférencier la xaw ma lu mu doon sax Mbàkke waa Azabul Jannati jàng nañ 7302 wakkaana aqan ñaan Serigne Touba nga yàgg fi téwér yow lañ ko ñaanal yow yow yow si Amadou Kara Noreyni loolu li tax nu def ko mooy xam ni am nañ git boo xam ni wër nañ ko fu ne mënuñu koo gis waaye ndokk bi leen yàlla boole. te ba nga jox kàddu gi ah mu dalale ko mbokkam mu baax mii di doog a ñëw. sëñ xaadim loo sa njàmbaar ngeen bokk Cees mooy ki nga xam ne dama ni sànq lu ne defal na ko Serigne Touba Mbàkke yow bërki démb dama ni ci télévision bi dama ni bërki ci télévision bi ku waxati pétrole bi dalaa war a jox droit d'auteur quatre-vingt-quinze nga ko wax bi nga koy wax kenn waxul waaye lii nga woote tey am na lu tax da mel ni dafa mel ni